site d'information sin TV nekkee fi ci diwanu fatik andi le lu bees tàkk lépp lu jëm ci walu sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu leen di proposer ay vidéo yu muccu à bien nga xamantene da fay top lepp lu jëm ci walu actualité sin TV nek fi ci diwanu fatik togal fi région bu à ak Sénégal Sine TV joko jàll. di gis ngeen ko yàgg di dund pendant douze ans je pense que am na loo xamante ne tey man ni ma ko jàppee gàcce la sax ci li fi parce que parce que loolu mooy dëgg parce que loolu mooy dëgg dëgg yàlla ko moom il faut oser le dire li Macky Sall liggéey Sénégal liggéey Fatick liggéey ko Fatick jëflanteeg ay nit muy ay responsable politique tey mënuñu woon mënuñu woote fii di honorer le président de la République gisuñ fi benn responsable politique boo xamante ne takk nga ndomal tànku Macky Sall mu fi teew loolu nekk lu ñu lu ñaaw ñun en tant que des jeunes ñun nak joxe woné nañ def nañ ñu participation honoré nañ la chef de l'État mais dañuy wax ne rek dañuy wax ak wa fatik ñu xam manque considération bi nga xamanté mom la responsable fatik responsable politique fatik jox jox fatik man duma len sax woyé des responsables politiques man je les appelle les soi-disant responsables irresponsables parce que man mënuma concevoir yow teranga go am ci politique Macky Sall moo la ko jox ay ndaw am ben initiative organiser ko wo len ci yeen ñep ngeen waron ñew tew mobiliser wu rester un seul homme manifester loolu woné votre solidarité aux côtés du chef de l'État motax tax Macky Sall il y a de cela même pas deux semaines bu muy wax né bés bu méttee mom day day reste seul loolu la responsable politique Fatick woné ñun nak ñëw nañu woné suñu téw fi woné suñu cofeel ci mom woné suñu engagement ci mom loolu dañu bëgg pour mu lèr légui nak li ñu bëgg a Fatick waay mooy Fatick dootul nekk commerce kenn il faut que responsable politique xamné xam dotul nek sen commerce population bi nak loolu ñom lañ koy ñaan ñu dimbali ñu ci. ñi gëm Fatick bëgg Fatick nañu ànd ak ñooñu ñun ñi nekk ñun seeni i ñun ñoo am yërmande ci Fatick loolu la yàlla dogal ñoom amuñu ci benn yërmande ci Fatick def nañ fi 12 ans wane nañu seen i limite taxawuñu askanu Fatick ni ñu ko war a taxawoo loolu moom mooy dëgg lu Fatick waaye dund ñoom ñoo ko teg Fatick waaye Macky Sall wàccoo na ak Fatick def na li mu war a def Fatick comme de nomination la Macky Sall ñaata nit la Macky Sall nommé Fatick amuñu excuse compl ay complexe lañ parce que organiser nañu Ndakaaru ñoom ñëpp ñu ñëw fees fa dell ay complexe lañ fess fa delu ku nek di wane fa bop fatik organiser ñewuñu lool moy manque mom la yag am ak fatik way lool nak ñun dañu nek ay ndaw fiñ jëm ak ñom dañ ko fas yéenee jeexal c'est pourquoi je lance un appel fort ci candidat bi nga xam moy candidat Benno bok yakar moy Amadou Ba na jël ay disposition yop bu di dafa bëgg dara fatik bu ko miser ci responsable politique du ko am di fatik fi nañ fa reyante ñun bañuñ ci dara lolu jeexna na moñu Sall ñun ak ñom ñu doon xol Macky Sall parce que amna taxaway bo xamne buñ ko am ci bi dëkk bi ñun yàqalul leen Macky lañ doon yàqal mais nag comme Macky neen day dem le 2 avril le 2 avril yagatul bu Macky démé rek jeexna ñu bëggu yeen ngeen xam lolu d'ici peu de temps lañ nañ gëna waxtaan ci li ma lañ di wax ni ci lu jëm ci suñu digënté ñu nak les soi-disant responsables politiques nga xamne ñom ño ñoo nekk fii di incarner responsabilité alors qu'ils sont irresponsables parce que yow mëno incarner responsabilité ñu jox la responsabilité ki la jox responsabilité bobu non ay xalé yi ndaw ay jeunes am initiative woo leen ngeen toll fee jël xaalis di ko yónnee ñun ñàkkuñu xaalis ñoom ñoo ñoom ñoo nekk ci dynamique politique bu salté boobu li ñu soxloon mooy ñoom ñu ñëw rester un seul homme wu ñu wan fat ñu wan àddina ñëpp ne Macky Sall dëkk ba mu dëkk muy Fatick euh, ñi ko defee ñoom defee nañ ko noonu wane nañ seen solidarité ci wane nañ seen solidarité ci wetam ñun lool lañ soxla woon mais toll fee kii joxe ne deux cent cinquante mille kii joxe ne cent mille joxe ne lii kii joxe ne lële loolu lañ yàgg jàppee politique jàpp fatik waay yi jàpp ne ñoom problème bi xaalis moo wu ko nit ki boo ànd ak moom da ngeen di naw da koy nawloo comme ni amee naw ak ñoom parce que Macky Macky def ay nawle moo tax li ko sénégalais yi def jox ko ko mu jël ci muy muy yi fal ko def ko président de la république mu jël ay dëkkëreem jox ko ñoom dañoo war a ci dëkkër président de la république bu ñu wootee loo xamante pour président de la république ñoom ñu war ñëw teew fi mais gis nañu seen site d'information Sine TV nekkee fi ci diwanu fatik andi leen lu bees tàkk lépp lu jëm ci walu sport culture éducation santé ba ci politique wala sax information ñu len di proposer ay vidéo yu muccu ay bi nga xamantene da fay top lepp lu jëm ci walu actualité Sine TV nekk fi ci diwanu fatik togal fi région bu fatik ak Sénégal Sine TV joko jàll